ak Dakar Plateau gi ko ëmb euh, loola nag jamono yi yëpp moo nekk ci euh, actualité ndax euh, marché sandga bi ñu ko daanelee jur na coow lu rëy waaye it jur wuute gu fës lool diggante ville bu Ndakaaru Soham Wardini jiite ko ak Dakar Plateau Alioune di maire ba tey itam yore boobule projet Euh, waaye marché boobu li waral mu amee noonee dayo mooy lu yàgg la te itam dafa am lu muy màndargaal muy patrimoine ngir waxtaanee loolu yëpp nag dañuy dalal Abdou Khadre Gaye di euh, doomi plateau nekk itam ku aada ak cosaan yitteel Abdou Khadre jiite ONG EMAD ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci réew mi FM mbégte la saa ne di sekk ak yow waxtaan Abdou Khadre. maa ngi lay fay Fatou Thiam di la seedeloo man itam sama mbégte ak sama cawarte. ci ñëw euh, ci sa émission bu am solo bi mhm. di démb ak tey mhm. waxtaanee lu am solo di patrimoine di marché Sandaga mhm. nekk ca Dakar Plateau marché Sandaga euh, démb ak tey la wax Abdou Khadre ci démb la bokk ndax euh, am na fi solo lool waaye it dafa bokk ci histoire ba doon patrimoine tey boo ñu doon dellu siwaatal ci démbi marché Sandaga loo nuy wax waaw dama leen di fàttali ne Euh, marché Sandaga tur bi moo jiitu bâtiment bi tey waral coow li ndax marché Sandaga ma nga ne woon ci ëttu pencum cëddéem soo ñëwee pencum cëddéem mu bokk ci fukki penc ak ñaar yi ndakaaru ëmb marché Sandaga tey penc ma ma nga ne woon tey fii lalu urus nekk ak la ko wër nga lépp lalu urus mooy marché or boobu mhm. nekk ci rue Polol euh, foofa la amoon benn garab bu fa samp garab gi nekk garabu sànd sànd garab gu mag la gu rëy gu day ni guy ci taatu garab ga la jaaykat ya doon daje hmm. ndax foofu moo doon bayaal bu yaatu ba xew-xewu penc ba yépp fa la daan amee mu am garabu sànd bu mag ba fa nekk su xew-xew amul képp ku am looy jaay ci taatu garab googu ngay ñëw su nit ñi daan dem sa garab googu nag pour faji seen soxla maanaam jënd fa dara dañu naan maa ngi dem ca Sandaga. Hmm. je vais à l'arbre Sand. loolu moo indi tey turu Sandaga. Hmm. donc Sandaga donc ñu ma la ko waxee. Hmm. tur bi moo jiitu bâtiment bi. soo xoolee wërngal boobu jamono jooju kër yooyu ngay gis foofu yëpp amu fa donc fi centre commercial bi nga xamante ne moo remplacé cinéma El Malick nekk am na cinéma ba fa newoon. sa jamono jooju sax cinéma Sandaga la ñu doon wax. d'accord gannaaw gi mu nekk cinéma Alhambra ci mujjeel gi mu nekk cinéma El Malick tey centre commerciale la. Hmm. soo xoolee fi nga xamante ne fa aare arrêt bi nekk. ba jamono demee ba xaw a sori foofu marché syndicat fa la nekkoon. Hmm. ñu fay wàcc ay mango. dans les années mille neuf cent cinquante diggante boobu dem ba service d'hygiène ba. marché syndicat boobu lu ñu toxal Pikine tur bi ba ma laajtee dañ ma ne fi banta ya nekk fi dibi awse yi ne mhm. ñu fay jaayee ay dibi mhm. foofu bureau syndical moo fa nekkoon moo indi mm. turi marché syndicat syndicat d'accord bureau syndical boobu benn sëriñ bu ñu naan boroom kurus gi di waajur bu góor grand si Cissé tey bi nekk grand théâtre mhm. dëkkoon na fa mbokki aw saam yay jugee dëkkam yépp suñu ñëwee ci foofa la ñuy dal looloo fa bàyyi aw yi tey foofu la bureau syndical bi nekkoon ñoom Seexu Touré ñoom Oufouet Douanier ñëpp fa la ñu defee seen apprentissage léegi nag loolu mooy taarixu Sandaga laata bâtiment bi hmm. am na guy gi nekk foofa ñu koy wax guy géwél tiim lalu urus bi hmm. guy googu les grands griots du Sénégal yi doon animé les années cinquante jëm ba soixante-dix hmm. fa la ñu daan daje tey am na benn plat jaaykaayu yàpp la marché Sandaga bi nag fi mu ne tey dafa nekkoon tam benn pakk bu yaatu lépp luy euh, jeu yu doon jugee métropole di ñëw mm-hmm. ay cirque ay loterie ay ay ay fa lañ ko daan defee mm. su fin d'année bi amee pàkk boobu nag moom la commune de Dakar jënd en 1933 ñu commencé la construction de l'actuel ou du défunt marché Sandaga. d'accord. travaux yi commencé en 1933 jeex en 1935 ñu inauguré ko le 20 avril ba mar marché bi nag euh, dañ ko tabaxee jamono jooju dafa am architecture bu juddu ñu koy wax soudano-sahélien mm-hmm. nga xamante ne dafay inspiré wu ci nañu tabaxee la mosquée de Diéné ou tabax yi amoon biir Tombouctou yëpp nga xamante ne c'est un style architectural typiquement africain soo xoolee monument d'époque yi nekk biir Dakar mhm. yu mel ni euh, polyclinique hôpital bi mhm. yu mel ni maternité Dantec mhm. yooyu yëpp ak euh, euh, musée bi nekk assemblée nationale Théodore Monod yooyu yëpp ci style boobu lañ ko tabaxee style bi soo ko xoolee da nga xam ne lii forme yi ak contours yi da nga xam ne lii c'est typiquement africain mhm. moo tax batiment bu mel noonu su dundee ba agsi si jamonoy tey jii day nekk patrimoine ñu mhm. classé ko patrimoine mu nekk patrimoine national mhm. mais Sandaga ci jamono jooju ña ko defaroon dafa am ay principe ak ay valeurs yi ñu daan dundal mooy yan su waxee ne suuf solu marché Sandaga Hmm. am na orchestre bu fa judd. Hmm. bu ñu naan la lyre africaine. Hmm. en 1946. doon fa def ay répétition muy am ay spectacle ci sous-solu marché bi. te yàqul dara ci activité marché bi marché bi yàqul dara ci activité orchestre boobu. mais ce grand saxophone Amadou Diop ñu koy wax grand Diop bokkoon na ci orchestre boobu suñu la waxee dans les années cinquante euh, euh, euh, benn benn bale bale Mansour Gueye moo doon répété ci terrasse marché bi mm-hmm. da nga noonu loolu naka la mënoon a amee parce que à l'époque marché yi dafa amoon heure d'ouverture mm-hmm. am heure de fermeture ñu koy raxas chaque jour ba mu set wicc avec l'eau de mer mm-hmm. parce que temps boobu dafa am ay branchement yi amoon géej nekkoon fële ca Anse Bernard moom la ñu doon pomper ndox bi di raxas marché yi di raxas tali yi ndakaaru chaque jour service d'hygiène nekk ci batiment ba mu nekk di defar dëkk bi di xeex ak lépp la nga xamante ne parasite la bu mën yàq la vie des citoyens dans la ville c'était ça le marché Sandaga bu ñu demee nag ba diir ba esthétique architecturale boobu commencé réer ba la ville de Dakar commencé perdre son visage et son âme mm-hmm. ñu ne ah batiment bi de ci li rëcc ca ba ndakaaru di baax ci la bokk nañ ko classé patrimoine ñu classé ko patrimoine tey patrimoine boobu la ñu dégg ne daaneel nañ ko te am na coow bu ci am mhm. pour l'histoire loolu laa ci mën a wax mhm. marché Sandaga googu bi nga fi wax ni mu mhm. taaroo ak na mu setee woon gisuñu ko woon waaye mun nañ ko imaginer ci li ñuy toppatoo chaque jour ba ay ballet ak i artiste mën faa euh, liggéey euh, mhm. wute na ak ni mu mujjee mel nga mhm. xam ni boo ko rombee daanaka dépotoir d'ordure la woon surtout nag bi ñu génnee ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon di di commerçant yi euh, yàqute googa lana koy expliquer selon yow en fait Fatia mm. waxantee dëgg c'est pratiquement dakaar qui est devenu un dépotoir d'ordures. Dakar ci boppam. Dakar ci boppam. Dakar ci boppam ñi xam Dakar démb suñuy doxantu Dakar ils ont l'impression que c'est une ville abandonnée ils ont l'impression que c'est une ville fantôme rombal marché Tilène nga xool. égu mm-hmm. yaak mbalit ma. waaw ak xeet gu bon gi. dugal biir marché bi nga gis lënd yi ak yàqute bi. géej nañ ko raxas depuis des décennies c'est la même chose pour Sandaga c'est la même chose pratiquement pour toute la ville mais pour le cas de marché Sandaga avant même incendie bi nga xamante ne am na en 2013 une semaine lañ ko tëj mais bon war nañ ko defaraat mu am incendie le 26 octobre loolu confirmé tëj bi ba tey jii c'est vrai que c'était sale C'est vrai que c'est un euh, dépotoir. C'est vrai que aussi Sandaga moment boobu créer na benn climat d'insécurité dans le quartier et dans la zone climat d'insécurité bi nga xamante ne agression yi dafa bëri parce que euh, euh, woyu yi dañ ko defoon abri comme que tëj nañ ko kenn duggatu fa ñu ñëw occupé ko avant timis di jot soo rombee Lamine Gueye bi dañuy këf sa alal dugg ci biir marché bi doo leen topp guddi su jotee waxi noppi am na benn moment am na coow bu rëy entre les jeunes du quartier ak woyu yi nekk ci biir marché Sandaga donc insécurité boobu am na fa euh, mu nekk une bombe écologique au cœur même de la ville c'est la vérité mais cela n'empêche pas que ce bâtiment est classé patrimoine historique man duma technicien hmm. su ñu demee ba patrimoine bu mel noonu ñu ne dañ ko war defaraat hmm. dafa am ay procédures yi nga xamante ne fa la war a jaar ñu war ko déclasser techniciens yi war a xool est-ce que patrimoine bi parce que képp ku détruire un patrimoine tu es considéré classé comme un délinquant parce que li waa teg ku ko teggi délinquant nga donc patrimoine boobu techniciens yi ñoo war wax bâtiment bi niveau délabrement bi mu toll est-ce que mën nañ ko restaurer est-ce que mën nañ ko réhabiliter wala dafa nécessité obligatoirement ñu démolir ko et ça c'est l'extrême parce que démolir un patrimoine on le fait avec les larmes aux yeux mm-hmm. on le fait avec un cœur meurtri et démolir un patrimoine ça veut dire que ñi nga xamante ne ñoom moom patrimoine bi sàggan nañu ça veut dire que cette génération n'est pas à même de transférer aux générations futures alal bi nga xamante ne ay prédécesseur am moom la ñu tekki loxoom. c'est un aveu d'échec débat boobu c'est un débat de technicien mais j'ai travaillé avec des architectes j'ai travaillé avec des techniciens mmh. qui m'ont dit que ce patrimoine n'a pas été déclassé qui m'ont dit que mënoon nañu réhabiliter le bâtiment parce que nag suñu waxantee dégg mm-hmm. palais de la République moom ak Sandaga waaw hmm? mm-hmm. palais 1906 la Sandaga 1933 donc le palais est le frère aîné du marché Sandaga defe naa la cathédrale de Dakar 1926 27 la yooyu yëpp ay patrimoine la yi nga xamante ne moom mooy def le visage et l'âme de la ville de Dakar. te fu yooya bâtiment taxawee ba tey Sandaga war na faa mën a taxaw. waaw waaw bien sûr mais ñi koy démolir ñu ngi am problème pour dajji ko. ndax dafa dëgër. parce que liggéey boobu. Hmm. donc architecte technicien yi ma waxtaanal nee nañ moom ñaar yëpp balaa ñuy démolir euh, bâtiment bi wu ñu procédure yooyu. Hmm. ay communauté humaine buy dund nag ay règle moo ko yore ay code de conduite moo ko yore ay procédure moo ko yore su ñu demee ba nit ñi am sañ-sañu violer ces procédures là pour yenn considération personnelle yi je pense que là il y a problème. Mais ce problème existe dans nos sociétés sénégalaises actuelles. Mmh. Le laisser aller, le laisser faire, l'incivisme, le manque de patriotisme parce que ku nekk sa bopp nga yëg. et moment bi nga xamante ne fii la bataille bi am entre la ville de Dakar bi wax ne moo moom bi ak Dakar Plateau bi wax ne moomatu ko moment bi c'est un moment politique très fort. Mmh. donc je soupçonne hmm. qu'il y a des considérations politiciennes bi waral activisme bi yëpp débordant au détriment de notre vie au détriment de notre patrimoine collectif qui va au-delà de nos personnes au-delà de nos individualités moo tax autorité bi war a taxaw pour régler cette question mm. qui est d'importance mm foofu laay bëgg a ñëw ndax yow doomi plateau nga plateau mm-hmm. ñor la lool ku la dégg ci say wax euh, daanaka gox bi du ci génn euh, mm-hmm. noo jàngatee décision wu maire bi tey euh, xëy rek ne dafay toj marché bi da koy defaraat te am yeneen xalaat yu wuute yu technicien notamment ndax dégg nañu ci ay architecte yu wax ne effectivement bâtiment bi mënoon na continuer taxaw ça veut dire que waxtaan amu ci diisoo amu ci xam nga tey dëkk boo dem dafa am ñi nga xamante ne ñooy waa dëkk ba nekk souche yi nekk racine yi am ñi nga xamante ne aussi dañu ñëw ci dëkk ba bokk ci dëkk ba mais nga mën leen distinguer ak ña fa cosaan mu rees mm-hmm. nga ne dëkk bii mooy sama ndey mm-hmm. ñu ne diw doomu ndakaaru la diw doomu ndar la diw saalum saalum la ça veut dire que am na benn lien mhm. un cordon ombilical en permanence bi koy lié ak dëkk ba mhm. dëkk bi war a am ay marqueur ci nit kooku parce que c'est son royaume d'enfance mhm. fa la juddoo fa la soxe ko fa la màggee fa la jànge àddina fa la maqee suuf mu am ay souvenir yi nga xamante ne par rapport ak dëkk boobu boo koy laal bi ñuy démolir le marché Sandaga un ami m'a téléphoné dafa jaar otoom mais il était presque en larmes mhm. parce que euh, euh, coup bu ñu dóor ci bâtiment bi day mel ni ci kawam lañ ko dóor même su fekkee ne bâtiment bi dafa détérioré wu. Mhm. ba ñu war ko daaneel ki koy màbb day jooy su dee doomi dëkk bi la. sa waajur bi faatu. Mhm. cadavre moo fi ne doo ko jël sànni ko ci mbalit ba. da ngay dépouille bi même si Sandaga dafa nekk en ruine ñu war ko daaneel nañ koo def avec respect moom la ñuy wax ku respecté boppam yëre ba mu sol mu teral ko du ko def chiffon buy fomp mais su fekkee nag am na werante ñu ne attends euh, ce bâtiment là n'est pas encore mort mhm. mën nañ ko récupérer mhm. mais ngal la nañ ko récupérer donc je soupçonne actuellement dans Dakar, avec tout ce qui est en train de se passer, il y a des personnes qui n'ont aucun lien sentimental avec Dakar, qui regardent la ville tomber en ruine, qui démolissent le patrimoine de Dakar, qui défigurent Dakar, qui ne respectent pas la ville ba ci corniche bi soo gisee niñ ko ñi ko yàq hmm. da ngay xam ne ñii respecté wuñu dëkk bi amuñu lien sentimental boobu ak dëkk bi est-ce que xam nga fi may waxee. Mm-hmm. donc nit ku toll foofu moo mën a saytu dëkk moo mën a defar dëkk parce que un patrimoine ça se respecte pour que la ville continue à retentir dans les cœurs de ses populations parce que la ville parle. Mm-hmm. la ville tient un discours ku xam dëkk bi di doxanti dëkk bi tu es en dialogue avec cette ville là nit ku mënul dialoguer ak dëkk ba. parce que tu dois vibrer au rythme de la ville am na nit jàng yu seen sensibilité culturelle yu seen sensibilité émotionnelle yu seen sensibilité religieuse mën a permettre ñuy vibrer à l'unisson avec une ville loolu mooy waral pèlerinage su ñu nee demal Makka dawal Safa Marwa pour que mu retentir dans ton cœur et dans ton âme soo déggul la dëkk bay wax jarul ngay daw Safa Marwa. Yoof fekk waa Yoof di def tuuru Maam Njaare nga xool bint ndiiraax ñi mu àndal nañuy wëree dëkk ba ah le retentissement bi muy am dans leur âme c'est parce que xam nañu la dëkk bay wax ku xamul li ndakaaru di làkk ku xamul li ndakaaru di wax munoo defar Dakar munoo respecter Dakar munoo respecter patrimoine Dakar mhm. mhm. Dakar Plateau c'est euh, ça nañu ne ne mu meloon démb ak ni mu mel tey am na wuute gu bare bare bare li tudd le fossé est yow mm tey booy dox ci Dakar Plateau wala marché Sandaga nekk lu la dëkk ba di wax eh, eh, sama xol dafay jooy hmm. sama ruu dafay jooy parce que damay dégg jooyu dëkk ba j'ai entendu les sanglots du marché Sandaga dégg naa ko J'ai entendu les sanglots de Dakar Plateau. J'ai entendu les sanglots de la ville de Dakar. mu metti ma mu naqari ma ma ciy bind di ci wax di ci xalaat di ci wëy di ci ñaan nag hmm. parce que feebar day dab mbindéef mais feebar bu ne am na saafara hmm. mais saafara bu ne nag ci loxo saafarakat lay jaar. Mhm. ne Dakar Plateau bi am na lu ko mën a saafara. ndakaaru gi am na lu ko mën a saafara mais saafara boobu de ànd ak une transformation profonde des usagers. bala ñuy ñëw ci saafara si lan mooy jàngoro ji lu ko naqadi. Euh, xam nga ba ma déggee les sanglots du marché Sandaga dafa wax. Hmm. ne seetaan nañ ma ba ma mel nii te moom de màggataguma bañ koy tëj fa marché bi 73 ans la am biñ koy toj 85 ans la am mu na dundaat ba ci kanam ndegam nit yi dund 85 ans marché bâtiment te wax naa la mooy rakku palais de la république. Mhm. mooy rakku cathédrale de Dakar mu ne sàggane nañ ma seetaan nañ ma xool nañ ma ba ma mel nii ba ay garab di sax ci kaw boppam ba ay ñax di sax ci ay noppam nga xool le visage du marché mu am ay crevasses défiguré peinture bi décoration géométrique ba nga xamante ne moom la ci architecte yi defoon ba soo koy xool bu kontaan dëñ sous-sol bi yàqu terrasse bi yàqu commencé xar mu ne nañ ma toppatoo nañ may raxas nañ ma daan raxasee nañ may defar nag saa su ne parce que kër l'entretien d'un bâtiment d'un homme d'une créature quelconque c'est au quotidien au jour le jour mais donc am na génération bu fóote. soo demee ne marché Sandaga kañ lañ la gëj a sang kañ kañ kañ lañ la gëj a dañu ko daan sang bés bu ne mais ay décennies la lay wax. Mm-hmm. mun la ne ba ñu amee indépendance ba léegi kenn kenn kenn sangatuma moom la marché ti leen di wax nga doxantu dans les rues du de la ville nga ñëw avenue Pétavin xam nga fi mu ne immeuble Kébé. Mm-hmm. fi bâtiment bi ñuy wax art funéraire nekk. te euh, jaaykatu livre yi nekk fi ak jaaykatu suweer yi. Mm-hmm. nga wàcc avenue boobu muy Jean Jaurès wàcceel Jean Jaurès ba Malick Sy doo gisati garab ci trottoir yi. tali rek. garab yëpp daane daanu na. Pétavin avenue de la République garab ya fa nekk dafa créé woon dafa formé woon ay arc de triomphe. Mm-hmm. bien cette promenade là parce que. Tu es bercé par le chant des oiseaux. Les rues sans soleil de Dakar Plateau. tey xay yooyu yëpp daanu ñu di wàcc de tous les Dakarois tey mënatoo ko am. Lamine Gueye jëpp euh, avenue William Ponty on l'appelait la reine des rues de la capitale de Dakar képp ku am gan tu as la fierté de te promener avec lui dem place de l'indépendance la ville respirait parce que c'était un poumon aération bi dafa am nu mu demee woon parce que ñi tabax dëkk bi Nous sommes dans une presqu'île. Et Dakar Plateau est dans la, au niveau de la tête de la presqu'île. looloo war architecte yi doon tabax pale de la république mag ñi ne woon leen ne ñaari géej gi dañu war xoolante parce que géej gii dafa war xool géej gi géej gi la xool géej gi suñu noppee xoolante musiba la ci dëkk bi moo tax la grande porte là. Hmm. bi nekk ci diggi palais bi ba tax soo nekkee ci tali bi ngay gis géej géej ca gannaaw architecte bi bàyyi ko fi pour respecter ses croyances traditionnelles. d'accord parce que ñoom xamoon nañu c'est quoi une ville. Mm-hmm. parce que une ville c'est une âme. une ville c'est une personnalité et cette personnalité doit être conservée cette âme doit être conservée qu'est-ce qui fait les, les larmes des fils véritables de Dakar Plateau mooy ne suñuy doxantu dans la ville ils ne voient plus le visage de cette ville, de leur enfance. Ils ne reconnaissent plus leur royaume d'enfance. kon yow ak ñi mel ni yow xàmmeetu leen Dakar Plateau. non xàmmeetuñ ko ces ces vestiges et ces marqueurs qui font que le visage de la personne reste quel que soit l'âge de la personne parce que ki xamoon nit ki ba muy xale soo ñëwee fekk ko ba muy màgget mais lépp effacé wul am na ay traces yu fi nekk ba tey. Mhm. Hmm? à travers la voix. à travers le visage lépp di dëñ yàlla sax dina yàlla sax am na sutura ci mbindeefam yi bu du effacer lépp kon boog yooyu nga xamante ne ville bi ci sa loxo la nekk fexeel ba bu lépp effacé wu bu lépp effacé beneen personnage lay nekk mm-hmm. beneen entité lay nekk moo tax ñu war a préserver ces marqueurs qui font l'âme et le visage de la ville mm-hmm. mais ku amul relation sentimentale boobu ma la wax ville bi mënu ko préserver ku xamul ville bi mënu ko préserver parce que ku xamul ne lii patrimoine la su koy daaneel pour moom deful deful luy aay. Hmm. damay moderniser. oui damay moderniser mais créer une nouvelle ville mais la ville ancienne a une histoire le vieux Dakar le Dakar colonial xam nañ ko mais avant la colonisation Dakar existait de Karawo ngi fi woon c'est le Dakar des Penc. même ces penc là dañu leen di violer intégrité et dans leur âme maintenant si l'âme traditionnelle de Dakar disparaît l'âme coloniale de Dakar disparaît mais on n'est plus dans Dakar dañ ko wutal beneen tour mhm. ça devient une autre personnalité ça devient un autre personnage une autre ville mais nous nous ne voulons pas d'une autre ville nous voulons notre ville notre Dakar Plateau notre Dakar moo tax xëccoo bi nga xamante ne am na mhm. entre des entités dafay daf ñuy jaaxal parce que quand j'entends euh, dans son discours le maire de Dakar Plateau muy oowaa Dakar Plateau ne xeex leen parce que lii alalu Dakar Plateau la kan lay xeexal Dakar dafa fàtte ne Dakar Plateau ci Dakar la bokk pourquoi ñu bëgg a fracturer cette ville de cette façon alors que ce qui intéresse les Dakarois ce qui intéresse waa Dakar Plateau ce n'est pas kan moo tabax marché Sandaga parce que l'habitant de Dakar Plateau ne se pose pas la question de savoir kan moo tabax hôpital principal kan moo defar place de l'indépendance kan moo taal lamp yi ci mbedd mi xam nga lu koy intéressé mhm. mooy nañu setal dëkk bi nañu tabax dëkk bi nañu defar place de l'indépendance nañu defar lamp que état defar ko que ville de Dakar defar ko que Dakar Plateau defar ko mais ñooñu ñoo seq ville bi mhm. mais est-ce que amul yeneen enjeu peut-être Fathiam pourquoi 2013 la ñu le le Barça balakkoon 2013 la ñu ko tëjoon boobu ba tey anañu woon lu ñu doon def. waaw hmm? ah, te ñu ngi fi ñu bàyyi ñu ne mois ku nekk fi nekk fii bëgg bëgg tànqal nit ñi parce que c'est des c'est des enjeux politiques kenn newul ne enjeu politique bu mu am. Mm-hmm. mais c'est pas ça qui intéresse les citoyens. na seetlu c'est pas ça. Mm-hmm. qui intéresse les citoyens. Euh, les acteurs de marché Sandaga waxtaan na ak ñoom. Mm. ils me disent xam nga lu ñu intéressé Abdou Khadre nañu defar marché bi dans les délais. waaw ndax tëj bi yàgg na tëj nañ ko daanaka luy jege at. dans les délais mu waxtaan ceex kenn mu ne bugguma Alioune Ndoye defar ko ma ne pour ak buggu Alioune ko mu ne ma du respecté délais yi. ah oui. mu ne ma du respecté délais yi ñu li gënoon dal suñu xel mooy état defar ko. Hmm. walla li gënoon dal suñu xel mooy état ak ville de Dakar ak Dakar plateau ànd defar ko. et boobu forme boobu moo gën a moo gën a baax fàccaam mhm. quand Dakar Plateau a sept milliards de francs à mettre dans dans le marché Sandaga hmm? mmh. ça peut les habitants de Dakar Plateau on a d'autres priorités sept milliards mën na régler yenn problème mhm. ok su fekkente ne maintenant c'est un dañ ko séddoo euh, état taxaw ville de Dakar taxaw Dakar Plateau taxaw mais ku nekk su joxee deux milliards ñu defar ko su doon restauration la sax du àgg sept milliards parce que sept milliards c'est parce que dañu daaneel bâtiment tabaxaat bâtiment selon restauration, les coûts seraient amoindris. Or, Dakar Plateau a d'autres priorités parce que état dafa am lu ko war. Mhm. ville am lu ko war. commune am lu ko war su commune dem di def li war ville wala li def état mais dina am fuy sooxe alors que soo duggee dans Dakar Plateau y a des enjeux d'assainissement y des populations qui n'ont pas de branchement à l'égout. Mhm. ba tey biir Dakar Plateau population ñu ngi yenu ay paan di rooti ci jàkk yi y a des maisons à Dakar Plateau qui n'ont pas de latrine mais tout ça c'est des priorité su ñu nee décentralisation nag mooy entité yi nga xamante ne ñoo ñoo wër askan bi ñoo nekk ci soxlay askan bi ku nekk dafa am looy def mu daal di oyof mm-hmm. mais soo bàyyee sa wargar bi nga xamante ne euh, euh, euh, priorité la nit ñi dañu bëgg sa waa kër dañu bëgg a ndekki dañu bëgg añ dañu bëgg a reer dañu bëgg a sol yére dañu bëgg a doxantu ji dañu bëgg a jàngi dañu bëgg a faju ji mais foog nga def ordre des priorités. Mm-hmm. lu nekk nga xam fan lañ koy defee ak naka lañ koy defee mais on devine que c'est des enjeux de politiciens qui ont des calculs bëgg sëlëm askan bi lëndëm bëgg créer un débat ba nga xamante ne dañuy redorer. leur blason terni par des pratiques yi citoyens yi gërëmul parce que débat yi soo ko gisee toujours en en république ces débats inutiles là que qu'on nous crée c'est pour endormir le peuple mais le peuple a arrêté de dormir mm. man du fond de mon cœur c'est ça ma conviction mm. c'est ça ma foi hmm. li amal solo askan bi daal mooy Dakar Plateau war am marché depuis 2013 amuñu marché askan bi sonn nañu acteurs yi nekkoon ci marché bi di liggéey sonn nañu nañ leen defalal marché bi dans les délais acteurs yi loolu la ñu bëgg ba pare ñu boole leen ci liggéey bi maanaam tout ce que tu pour mois sans mois ci le fais pas pour mois mm-hmm. def naa Nelson Mandela moo ko doon wax. Mm-hmm. loolu xewi na ci àddina soo liggéey nit da ngay diisoo moom da koy impliqué. loolu demande ci acteur yi deuxième demande bi mooy ñu respecter les délais. mu bañ a nekk un chantier qui traîne comme le chantier de Bibi Ndiaye qui était prévu pour pour dix huit mois et qui a duré dix années un chantier du maire de Dakar Plateau moo tax ñu ne óoluwuñ ko ci Sandaga. Bibi Ndiaye dix huit mois la woon tu as fait dix ans te ba léegi ubbeegul. kon soo jëlee Sandaga qui est dix fois plus important que Bibi Ndiaye combien de temps ça va durer donc acteurs yi loolu lañ demandé li ñu demandé moo ñu defaree leen un marché fonctionnel. Mm-hmm. ba pare nag marché Sandaga bu bees bii participer à désencombrer les artères du plateau parce que am na ay askan biir Dakar plateau dundatuñu. Mm-hmm. marché bi def leen fat marché bi daf leen étouffé alors que soo raisonné sur les fonctions de la ville bien sûr la ville a une fonction marchande mais la fonction habitation <laughs> moo jiitu. Mm-hmm. da ngay dëkk ba pare dëkk bi yéwén bañ a xajam nga am marché mais marché bi bañ a yàq dara ci dëkkuwaay bi. Mm-hmm. nga am atelier mais atelier bi bañ a lekk dëkk bi parce que une ville ça se pense ça se réfléchit. Mm-hmm. ça se fait dans la concertation. mais malheureusement il y a des acteurs politiques individualistes qui ne pensent qu'à leur personne foog nañ ne ñoom ñoo war décider. Mm-hmm. su fekkee ne dama war toj est-ce que dama war daaneel patrimoine bu ñu bu ñu war a toj te yàquwul sax concerté wu la ak askan bi ne leen waaw yéen que représente dans vos cœurs ce bâtiment là ma toj wala ma defaraat askan bi décidé ñoo ko moom. wala yow yaa ko moom yow mi ñu fal askan bee ko moom. donc loolu yëpp ay ay mbir la yi nga xamante ne euh, daal gis nañ ne xajam na. ci mbir mi. Mhm. Dakar Plateau Dakar en général le Sénégal dans son entièreté nañ ko xalaat. Mhm. nañ ko waxtaan. Mhm. nañ ko defaraat mais suñu defaraatee dëkkuwaay yi nañ defar nit ñi parce que su nit ñi melul nañu war a mel. loo defar kasara na. day yàqu. day yàquwaat. sànq lim nga métitu Dakar Plateau ak Dakar ci boppam. Euh, marché Sandaga rawatina euh, nga doon ñëw ci saafara yi makar la ni lan wax d'abord euh, feebar yi léegi nag saafara si lan la gannaaw bi nga limee jàngoro yi wopp gi nga xam ni moo jàpp ndakaaru Dakar Plateau rawatina nañ teg suñu nopp ci dëndu dëkk bi comme sur la poitrine de la bien ñu déglu les battements du cœur de la cité suñ ko dégloo dëkk bi ci boppam moo lay wax boppam wax la lu koy metti hmm. ax lu ñu yàq te waruñu ko woon yàq ax lu ñu waroon a defar te jotuñu ko defar su ko defee nag nga taxaw ci mais loolu benn nit du ko décider hmm. soo tegee sa nopp ci dënnu dëkk bi ba déglu les pulsions de son cœur da ngay waxtaan ak askan bi parce que ñoom ñëpp teg nañu seen nopp ci dënn boobu am lu ñu dégg ngeen échanger ci li ngeen dégg ngeen échanger ci li ngeen ko dégg dëkk bi le sit de Dakar dafa rafet déjà hmm? Hmm. dafa rafet nee naa la ne mag ñene woon nañu ne ñaari géej gi dañu war gisante parce que foofu la bëtu ndakaaru nekk hmm. foofu mooy bëtu ndakaaru Dakar soo demee place de l'indépendance avant ñuy tudd place de l'indépendance ba fu mag yi nekkee mu ngi tuddoon Baye parce que foofu la fukki penceex ñaar nekkoon. ñu bàyyi ko muy bayaal bu yaatu dëkk yi wër ko parce que mag ñi fi ñëw jiitu fi tubaab yi di mag magi lébu yi xamoon ñu ne dëkk day yi te dëkk boobu foofu lay nooyee ñu ne fii de bu ko kenn fatt parce que mooy bakki bakkinu dëkk bi dégg nga. Mm-hmm. nga ñëw fii tubaab bi tuddee génn naa Dakar Plateau c'est pour te donner l'idée mm-hmm. zone de captage. Mm-hmm. nga dem Waxinaan nga dem Cité Jonkoob lu tax ñu ne ko Waxinaan lu tax ñu ne ko suni Cité Jonkoob lu tax ñu ne zone de captage parce que xam nañ ne foofu bëre bu ndox la kenn du ko dëkkee. d'accord suñu problème mooy dañu dem fekk bëre ndox yooyu. ñu dëkke ko ndox bi ñëw jël place am parce que olof nee na ndox du bàyyi yoonam. Mm-hmm. su dee da bëgg a jël place am na nooy def ne tubaab bi def Médina parce que rivière ba fa nekkoon bopp ba mooy bopp geen nga mooy gël tàppe ñu ne fii lañ ko bëgg a def zone d'habitation. Mm-hmm. ñu sëkk mais ba ñu sëkkee dañu ubbi ñaari conduire mm-hmm. ca yoon ba dégg ba jëloon nga xamante ne su tawee. kondiir mhm. yi dinañu taxaw taxawaayu dégg ba mën a drainer ndox bi yóbbu ko géej inondation bi nga gis ci banlieue ba mënu fa am. fii nag ñëw dëkk te defuñu c'est parce que teguñu seen nopp ci dënnu dëkk ba déglu dëkk ba mu wax la. Mhm. donc suñu bëggee defar Dakar Plateau suñu bëggee defar dakaar noonu la ñuy def su ko defee dakaar Dakar dinañu ne fii moo la kàkkalam ma ne maam Alioune Diagne Mbour lan mooy kàkkalam mu ne mooy ñëpp ko bokk hmm. kenn waru koo def moomeel muy le domaine maritime suñu xamoon ne fii moo la kàkkalam hmm? Hmm. kenn du fa tabax xam nga pour lan kenn du fa tabax parce que suñu ñëwee nekk une famille ñu am ëttu kër ëtt bi ñu ñëpp ñu bokk ko ku nekk moom sa néeg jéelaani jugee fee ne am naa doole damay tabax beneen néeg ci ëtt ba yàqal na ñëpp. Mhm. parce que ëtt kenn du ci tabax. fa la dëkk bay respirer su ñu xamoon loolu kenn du dëkk sur la corniche loolu mooy première li njëkk a défigurer gën a ñaaw ci ndakaaru parce que taaru ndakaaru c'est la vue de la mer c'est cette ouverture sur l'Atlantique c'est cette guirlande de vague bi Senghor di wax ci poème am ba Mm-hmm. donc loolu dañ koy préserver kàkkalam y plus de construction sur la corniche fii moo la Cap Vert Cap Vert mooy le cap qui a de la verdure mm-hmm. donc ñi doon jugee ci géej gi di ñëw xam nga li ñuy njëkk a gis mm. garab yi ak yu vert yi maam maam Alioune Diagne war na c'est devenu un cap béton si on veut conserver l'âme de la ville dañu jëmbataat garab yi jëmbataat xay yi ci tali yi parce que ñi doon doxantu biir dakaar xam lan lañ lan moo doon njëkk a distinguer Dakar hmm. l'odeur des algues et de la mer l'odeur des arbres et des fleurs actuellement Dakar sent mauvais sent pourri loolu bokk na ci li ñuy defar Ndakaaru hmm. ñu xoolee loolu nag ñu xool naka la ñuy tabaxee ak naka la ñuy dëkkee ku nekk tabaxee ñu la neex demal on vient de de de reprendre le bâtiment de l'hôtel de ville de Dakar restauré nañ ko avec l'architecte Berthet mais instant bi ñu koy restauré ñu ngi tabax benn immeuble ba nga xamante ne ça enlaidit l'environnement parce que dëkk bu nekk dafa am lu ñuy tabaxee am na du ku du ku nekk da ngay tabaxee nu mu la neexee du ku nekk da ngay peinturer nu la neexee du ku nekk da ngay dëkkee nu la neexee sa fausse l'harmonie et la beauté de la ville. Mmh. même le ravalement des immeubles war ko defaraat yan immeuble la ñu war ravaler yan couleur la ñu war utiliser yan peinture la ñu war utiliser ça se réfléchit pour créer de l'harmonie Fatia. xale yu jigéen ñi sax sama doom bu jigéen bi suy solu xam ne yan couleur la war a harmoniser xëy man Abdou Khader ko xamul. xam na yu muy boole. Hmm? xam na yu muy boole. mais regarde cette ville de Dakar là à quoi ça au pays du soleil on construit en verre hum des bâtiments des immeubles en verre au pays du soleil doyul waar. <laughs> Hmm? waaw doy na waar de branché wu de waaye loolu moom xaw naa doy waar. <laughs> Parce que le soleil et le verre ne vont pas ensemble. Hmm. ça et reflet yi sax xamoo yan yan incidence la mën a am. ci bët ci bët actuellement Dakar sent mauvais kenn xeeñtootul fleur kenn xeeñtootul garab on avait des fromagers on avait on avait des flamboyants on avait on avait du tout même la corniche c'était une forêt donc loolu suñ ko réglé ba pare boo xool loolu c'est les c'est les grosses œuvres kii euh, euh, corniche bi ñu dindi yooyu fa nekk xat-xat bi. Hmm. Hmm, jëmbataat garab yi harmoniser couleurs yi harmoniser forme yi xam où est la ville coloniale ou est la ville traditionnelle c'est quoi la ville moderne à quoi elle doit ressembler ñu désencombrer. Hmm. ñu désencombrer parce que ville dafa am marché mais quand la ville grandit le marché warul grandir ba étouffer ville bi comme une pieuvre. Mhm. méchante pieuvre qui tue la ville dañu war xool marché bi naka lañ ko war a organiser ci biir ville bi mhm. ba la fonction habitation duñ koy yàq Dakar c'est une ville culturelle où sont les bibliothèques où sont les médiathèques où sont les événements culturels qui animent la ville. Hmm? bareetul de amatul. Mhm. mais da ngay yërëm xale yi fan la xale yi di dundee parce que dans une ville Fathia. xale yi dañu war am seen place. Hmm? handicapé yi am seen place màgget yi am seen place mais tey ku am xale da nga koy tëj sa kër parce que bëggoo mu génn il est en insécurité dans la rue parce que y a plus d'espace de loisirs et de jeux pour les enfants mmh. les enfants ne sont plus en sécurité dans une ville mais ville su demee ba xale yi mënatuñ fa dund est-ce que ville la nga fa Je disais à quelqu'un que les vieillards de cette ville, les personnes âgées, sont emprisonnés dans leur domicile parce que mënatuñu doxantu ci dëkk bi. Il est dangereux pour un pour un handicapé de se promener dans une ville où les regards des égouts sont partis. waaw. Fathia. waaw Ndakaaru dafa feebar ah. mais dafa feebar. Hmm. mais euh, euh, xam nga euh, au temps du colon je t'ai parlé tout à l'heure du ramage des oiseaux sur l'avenue Lamine Gueye ndeysaan mhm. bi ñu nekkee xale man fi de dëkkoon seize avenue Jean Jaurès euh, dafa amoon des des bâtiments à terrasse deux étages la woon am ay tuiles ak bi euh, en fin de journée c'était la ronde des hirondelles dafa doon génne di leen seetaan quoi <laughs> quelqu'un me pose la question où sont partis les oiseaux de la ville où sont parties les hirondelles de la ville parce que ñi aménagé dëkk bi bàyyi ñu leen xel. Hmm. dañu amoon seen place. ah oui am na fonction bi ñuy joué ci ville bi am na liggéey bi ñuy liggéey ci ville bi pas seulement du point de vue esthétique ah. Mm. la beauté du vol des hirondelles et tout mais am nañu fonction bi ñuy joué ci ville bi une ville c'est un tout. Hmm? donc euh, comme ni nga ko waxee dëkk bi dafa feebar. la responsabilité maintenant incombe à tout le monde. Justement. Et maintenant, nos élus mm. qui sont là war a diagnostiquer problème bi war a trouver solution mais seen bopp moo leen yitteel ak moo leen ñor. Hmm. seen bopp moo leen yitteel seen bopp moo ñor dëkk bi yitteelu leen dëkk bi ñoru leen. Hmm. Et maintenant, à partir de ce moment, ils raisonnent faux. Ils raisonnent faux. Et qui raisonne faux mais mënul indi solution bu baax. Mhm. parce que fam ko teg du foofu on modernise on modernise mais <laughs> qui te dit que nous voulons de cette modernité là qui tue l'âme de la ville est-ce que nous voulons être étouffés par le béton et le fer hum Aline Diagne Bor bi ma doon wax ne que le Cap Vert est devenu un cap béton mais il avait compris que le béton ne travaille pas en faveur de l'âme humaine. Hmm. on ne peut pas ne pas utiliser du béton mais nañ ko utiliser sans tuer notre âme hmm? maam Ismaïla Gueye ndeysaan yàlla na ko yàlla yokk leeram am mag ñi mu nekkal barsax ba président ne da koy seet si gars yi dugg këram sur l'avenue Lamine Gueye soo rombee zawiya bi foofu ndeysaan ñu ne ko président daf fii ñëw dañuy dër ëtt bi mu ne leen ku fi laa benn bant tooñ nga ma ndaxte kër dafay am suuf. Hmm? mag hmm. mais am na place bu ñuy bàyyi. Hmm. c'est ce que pleurait le personnage de Cheikh Hamidou Kane bi mu demee en France l'asphalte et le béton. mu ne avait plus de contact direct entre la chair humaine et la chair de la terre contact boobu dañ ko war préserver pas bàyyi le sable envahir la ville. mais laisser des espaces de respiration à la ville. mais nous nous avons des plages. Hmm? Mm-hmm. ñiy xëccoo tey nii xëccoo di xeex yi euh, attends quelqu'un m'a posé la question mu ne ma mais attends Assane Diouf biñ koy daaneel ana ñi ana ana Alioune bi le chef de la waxoon na ne da koy delloo te xale yi tey waa Rebeuss ñu ne ma le stade Assane Diouf c'est la cour de récréation des enfants de Rebeuss c'est pas seulement un stade c'est plus qu'un stade mm-hmm. c'est une cour de récréation pourquoi xeexuñu pour jotaat ko alors que dans tout Dakar Plateau amul amul amul terrain de football yi nekk mooy nekk ci biir école yi amatuñ ko Anse Bernard fu mu nekk nii est menacé d'être vendu la seule plage valable tey bu ñu desee alors qu'on en avait douze pour def fa benn hôtel Anse Bernard on a commencé ce combat kan moo jàpp ci combat boobu alors que ce combat était prioritaire pourquoi parce que li ñu moom la ñu bëgg ko nangu bokkul ak li nga moom ñu war ko defar fii combat bi mooy kan moo ko war a defar. Mhm. Hmm? fële combat bi mooy moomeel bu ñu bëgg a nangu këf ko def ko hôtel. ngeen nar a un domaine public bu ñu war privatiser. Hmm. loolu combat mhm. tabaxaat garab yi combat la. tabax Sandaga mu nekk Sandaga combat la mais nañ mën a combat yëpp. au profit des populations mhm. population yooyu justement laa bëgg ñu wax ci seen responsabilité ndax tey ndakaaru feebar na. loolu moom mhm. nekkatul lu uppe yàqu-yàqu yi bari na ndakaaru mu ngi jëm ci gën a yàqu parce que saa yoo xëyee situation bi di gën a doy waar nawet bi. Mhm. wane na ko égout yu bari kubéer ya rocc nañ ko yóbbu foo tourné gis fa mbalit loolu responsabilité wu ña yeewoo ci dëkk ba la. Euh, mhm. ndakaaru ak Dakar Plateau particulièrement lan lañ responsabilité wu askan bi ak tey ban taxawaay la war a am euh, ngir soppeeku gi ngay wax mën a nekk. waaw xam nga askan bi euh, liggéey bu yaatu la bu ñu war def parce que la transformation des hommes c'est pas le travail d'une génération ça se fait sur les générations le formatage des hommes ça se fait sur des générations foog ñu xam quelle ville nous voulons mhm. quelle population nous ban relation la ñu bëgg entre la ville et les populations suñuy liggéey ville bi ñu liggéeyee noonu suñuy éduquer population bi ñu éduquer leen noonu mais su fekkente ni c'est le laisser aller et le je m'en fichisme un peu partout kan moo yar kan parce que balaa ngaa yare da nga yaru ki ngay digal toujours da lay xool ki ngay digal. Mm-hmm. toujours da lay xool kii est-ce que li nga may digal mu ngi ci. mi ngi koy def jiitu na ci. waaw su gisee ne defoo ko du la gëm du la déglu sax. Mhm. moom la le philosophe ñi ci doon wax la preuve du philosophe c'est sa vie il est facile de philosopher. Mhm. mais il est difficile de vivre de sa philosophie. donc responsabilité bi c'est partagé. Mhm. autorité yi kilifa yi à tous les niveaux parce que kilifa bi da jógee ci président bi ba ci chef de penc bi. ba ci borom tey une ville ba nga xamante ne transformation bi àgg na à ce niveau détérioration bi àgg na à ce niveau quand le le citoyen regarde la ville il a l'impression d'avoir en face de lui une poubelle mais il jette ses ordures où il veut parce que ville bi dafa war a am lu mu nirool donc ñun ñëpp ñu remettre suñu bopp en cause nu ñu def introspection à tous les niveaux mais pour que liggéey bi gaaw autorités yi nga xamante ne am nañu information bi xam nañu fi góom bi toll xam na ñu fu feebar bi toll ñoom ñoo war njëkk a transformer seen bopp ci seen discours hmm? mhm. ci seen comportement ci seen wax quand le maire de Dakar Plateau dans son discours considère le maire de la ville comme un adversaire di ko accuser de fossoyeur de Dakar mais le discours est faussé parce que c'est des partenaire c'est pas des adversaires voilà. Mhm. l'État central ak État décentralisé mais c'est c'est c'est ils se complètent mhm. ils travaillent ensemble hmm? ku nekk war nga mën na nekk ci chantier oo sa morom mu ñëw jàpp ci say finance war na manqué mu ñëw jàpp ci parce que vous travaillez pour la même population mhm. donc gis nga le changement qu'il doit y au niveau même du discours dëgg la au niveau perception bi nga xamante ne moom la autorité centrale bi moom le président de la République di am sur le maire de la ville loolu problème la parce que des fois dañuy gis même bu ñu wuutee sax ci fi ñu bokk ci wàllu politique rek dafay am njeexital ba ci askan wi mm-hmm. lañu waroon a am euh, ci gox bi ak euh, yu lu aju et maintenant le discours est faussé hmm. le Alioune Ndoye qui est avec euh, Khalifa di défendre la place de hmm? Hmm. le Alioune Ndoye qui accuse euh, Soham les populations n'ont pas oublié. Tout est brouillé, le, discours n'est plus clair. On dit mais attends, kii li muy wax nii démb il était avec Macky Sall di xeex euh, sous les lacrymogènes pour défendre la place de l'indépendance aujourd'hui mu nekk di attaquer la ville de Dakar même entité bi alors que c'est des collaborateurs au service d'une population bu ñu warul diviser en deux bu ñu warul écarteler moo tax euh, éducation bi à tous les niveaux lañ ko war def dañu war yar suñuy suñuy kilifa dañu war a yar suñuy kilifa moo tax man maa ngi doon wax sax est-ce que les autorités là bi yi ñuy fal ok mënoo mënoo def de façon sélective ah ne ko amul niveau bi kenn du la fal maire et cetera c'est pas ça. Hmm. c'est et la qualité du cœur. Hmm. ok mais maa ngi doon xalaat sax est-ce que waruñu ci réew mi kilifa bu ñu fal ñu defal la formation <laughs> comme ni ko lébu di defee ñu ñu boofal la quoi ah chez les lébu ñu ngi ko doon tuddee boofal. ok mooy ne suñu def falee ba pare. Hmm. dañ lay dugal ci néeg bi. pour une retraite spirituelle de huit jour foofa ñu lay teg kilifa ndakaaru yi la jiite ci jiitu ci kilifteef gi yëpp dañ fay fekk sëriñ ndakaaru bi ku nekk jàngal ko. ñu yàpp la daal. jox pas yëpp kese jàngal ko. jox ko xam-xam. jox ko xam-xam su génnee ci néeg bi ngay jàmbur bi joxoñ ko ne ko ba ngay dugg ci néeg bi yaa ngi tuddoon sàmba bi ngay génn ci néeg bi nag sëriñ ndakaaru nga xamal loolu. Hmm. dootoo yow tu ne plus. mais tey dañuy jël ni rek ñu def élection ñu jël euh, Samba ne ko bon tu es le maire de Dakar Plateau te quoi la tête de Dakar Plateau kenn du ko formé. bu xam lan mooy relation ak état lan mooy relation ak ville naka la war doxalee délégué de quartier yi naka la war comporter wu avec les ASC et cetera xamul dara. est-ce que mag yi itam amuñu taxawaay bu war a taxawee foofa. mais bien sûr parce que dans nos valeurs de culture traditionnelle dañ fa war douiller pour gérer notre modernité tey jii am na conflit yu bëri ñu ngi koy yóbbu police mais dans nos tradition c'est le délégué de quartier moo doon réglé yëpp ba récemment mm. ak chef de penc bi les conflits là mais les conflits bu am yóbbu police yóbbu tribunal tribunal surchargé mënul attelé on a des difficultés parce que on a des outils traditionnels yu fi nekk te utiliser tuñ ko même du point de vue de la démocratie que nous avons emprunté à l'Occident mais il y avait une démocratie consensuelle ici à Dakar bu ñu war a jàng nga xamante ne c'était pas basé sur la de la majorité c'était comme avec les Indiens une démocratie consensuelle su ma farulaax yow du ma faraax yow mukk mais du ma yàq sa liggéey est que dégg nga wax ji. dégg parce que kooku intérêt communauté bi moo ko amal njëriñ. Mhm. il faut que fàccaam ñu duy ji ci teen boobu. Mhm. l'intérêt communautaire. qu'on la capacité d'oublier nos carrières qu'on la capacité d'oublier noo personnes qu'on la capacité de faire comme Bagnul Mang de mhm. sacrifice de sacrifier pour la communauté. ñu ne am na ku war a dee de pour askan bi mucc gars yi di ko xëccoo. le don de soi. oui ñu ne askan bi dafa war mucc am na ku war a dee ñuy buuxante ba ñu dem ci élection pour xool kan moo war a dee mais su ñu ne am na ku war a dund kenn du buuxante am na ku war dund kenn du buuxante ñu ne kan la ñëpp taxaw su ñu nee jëlaani yow la de kon yow la ñuy tànn teraanga bi yaa ko moom yaa war a dund jëlaani déedéet jox leen ko fàcc am. Hmm. ndax moom a ko gën a yellool loolu mooy valeur traditionnelle yi mais tey ñi nga xamante ne ñooñu jiite ñooy ñan ñi jiite ñooy ñan ñoom ñoo comprendre tu mais askan bi comprendre nañu d'accord ñoom ñoo réer réeral askan bi mais ñay xam ba tey ñu ngi xam léegi nag il faut que ñu def des assises ñu ndëppal réew mi hmm. xam mooy ndëpp hmm. alaaji ngaa liggéey yàlla na ko yàlla yërëm. amiin mhm. mu ne ma Abdou Khadir dëpp mooy dañ lay dëppal ndax soo dindee enn bi dëpp moo ciy des suñ ci yokkee ind ind bi. mooy mhm. dañuy dañuy dëppaloo kii dem. ma ko mais pour lan ñu koy dëppaloo parce que yoon bi mu jaar baaxul. il est sur le chemin de la mort. il est sur le chemin de la perte de la personnalité. Mhm. écartelé ñu ne nañ ko dëppaloo ñu ne fan la ñuy jaaraax moom ñu ne nañ jaaraax moom fu ñuy jaaraax kii dee. soo gisee cérémonie dëpp yëpp. même rituel la pour un cadavre qu'on enterre ensuite on l'enterre dans dans dans les xamb traditionnels. Mhm. nëbloo ko nañuy nëbloo nii ba ci biir bàmmeel la décomposition de la chair. Mhm. en vue de la renaissance. Mhm. ba ba ba waaj yu ba waaj yuuxu ne deewuma dañu ne damaa dee wante deewuma. <laughs> woy boobu woy kañ ñu dëppal woy woowu woy. ñu xam ne dëpp bi baax na. ndekete deewuma dañu ne damaa dee te deewuma nangu na ne moom deewul. Mhm. mais def ko nangu woon. Hmm. ñu defal ko rituel bi bu dugal ci inconscient na sam que deewuloo mu ne ah kay wax ngeen dëgg deewuma et il fait le chemin retour. Hmm. boobu nit ku ko def. Hmm. mat dalay yomba. mat nag moo fi amatul. mat bii tax nga jubóog sa bopp. mat bii tax nga jubóog sa mbokk. mat bi tax nga jubóox ki nga ilif ak la ilif mat bii tax nga nangu sacrifice mat bi tax nga xam ne l'adversité ce n'est pas la haine tu es mon adversaire hmm. et tu es mon adversaire bien-aimé comme disait Saint-Exupéry dans la citadelle <laughs> hmm. mon adversaire bien-aimé su nit ne wax ne àgg hmm. mais fii l'adversaire c'est lui celui à qui on souhaite la mort di daram waxante lu ñaaw di ko wax lu ñaaw lu ne nga xëpp ko ci kawam alors que ton adversaire c'est lui qui qui va t'aider à grandir hmm. c'est lui qui va qui va t'aider à devenir toi-même parce que dans le combat dans l'adversité bi leen jàkk bi ngeen jàkkaarlool hmm. sans haine ni rancune ni rancœur hmm. mais il t'aide à grandir yow aussi tu l'aides à être parfait déglu ko parce que moo lay wax ki nga doon moo lay wax li nga li nga matalul moo lay wax li nga manqué mm-hmm. moo lay wax li nga war a def yàqu-yàqu bi donc fàccaam pour dire la vérité mm-hmm. du dëkk bi moo yàqu kese mm-hmm. dëkk bi yàqu na waaw ah. mais nit ñi ñoo yàqu yàq dëkk bi mm. kon suñuy defar est-ce que sax du le chemin contraire la ci nit ñi la ñuy commencé waaw ragal naa ko nag <laughs> doogu ñëw ci dëkk bi bu dul loolu bu ñu defaree dëkk bi bàyyi nit ñi day yàquwaat <laughs> ah, doo du baax <laughs> du baax dëgg la su fukki nit di gas. Mhm. fukki nit di suul. Mm. dëkk du am. waaw pën day bari rek ñi baax su ñuy defar guddi. Mhm. ñi boñ ñi di ko toj ci bëccëg bi. Mm. taax du am. waaw. Hmm? dëgg la. <laughs> <laughs> boroom xam-xam bi fu ne <laughs> si tu veux qu'il collabore appelle-les à la construction d'un temple ou d'une pyramide comme faisaient les les pharaons en Égypte. Mm. mais si tu veux qu'ils soient des ennemis jette-leur les graines du pouvoir à se partager. Mm. donc c'est dans la collaboration mmh. dans le travail collectif sur une grande œuvre mmh. une œuvre qui surpasse et dépasse les générations mhm. xam nga ñu doon tabax euh, pyramide lu tax ñu nekk de grands hommes hmm. parce que tabaxuñu woon pour ñoom da ngay ñëw ñu ne pyramide bi bañ koy defar la construction a duré deux siècles tu te poses une question ñaata la génération li pyramide bi lekk balaa muy tax tabax donc ko doon xalaat pyramide bi xam ne construction bi dina durer deux siècles mhm. defaru ko woon pour moom ña ko doon tabax tabaxuñ ko woon pour ñoom mhm. ils fait pour les générations futures mhm. xam nga nag léegi ñu lan la ñu am toolu olof suul mango ne ko saxal mbaama sulli la <laughs> maay liggéey alal bi maa koy maay lekk alal bi <laughs> looloo ñu yàqal day na wax alors qu'on doit penser aux waxtu bi waxtu bi dab nañu Abdou Khadre waroon nañoo mën a gën a yaatal ndax ak yow waxtaan wi euh, wax dëgg yàlla day xoot lool macha allah te itam loo jukki leneen jug taxaw waaye li wolof naan li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li dañu ko fi yemale tey gërëm la bu baax a baax ci waxtaan wi amoon mbégte lool sekk ak yow euh, bi la jotaay ci sàndaga ndakaar Plateau ak Ndakaaru ci boppam su li jafe-jafe yi waaye itam indi ay saafara ñu ngi lay gërëm bu baax Abdou Khadre Gaye euh, njiital ONG e di la dig daje beneen yoon ci beneen waxtaan incha allah. jërëjëf Fathiam maa ngi lay gërëm man itam di remercier kilifa rajo bi ak personnel bi yëpp. Mm. di euh, ñaanal waa Dakar kilifa yi ko jiite. Mm. waa marché Sandaga ak population yëpp. Euh, ñu xalaat ci suñu bopp. Mm. ñu fexe ba defaraat suñu dëkk. mais pour ñu defar ko foog ñu defar suñu bopp. ñooy mm-hmm. ànd defar ko mais ku nekk rek na nga tàmbali liggéey bi ci yow. Mm-hmm. ak sa njaboot nu mu gën a gaawee. jërëjëf yàlla yokk sa jërëjëf Abdou Khadre ñi doon dégloo émission bi ak Diawa Diallo mi ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi euh, dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaane leneen ak keneen émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci YouTube ñu yendoog jàmm